Bonsoir. <clears throat> Vous allez bien ah, je sais pas, je les commentaires, j'arrive pas à vous lire. Attendez, je vais régler. c'est bon. Vous allez bien Bon, euh, déjà, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien dogu et que Dieu bénit ak euh, waaw ak euh, Dieu Dieu bénit ak njaayeen yi ak kebe-kebe yi j'espère que nekkoo leen toog si bool bi di lekk rek parce que tamit lekk daa am fu mu yem daal sama mbokk yi bëgg lekk et tout ça et euh, voilà donc euh, j'attends que tout le monde se connecte Il y a un petit retard là sur les commentaires parce que j'arrive pas à tout lire. Voilà. Donc là, je suis... Euh, voilà, cheveux naturels. Avec mes cheveux bouclés. Bon, je rappelle que je suis nappy. Donc j'ai les cheveux qui sont euh, un peu euh, bouclés, façon et tout ça. Bref, je voulais pas mettre de perruque parce que je voulais pas euh, euh, me fatiguer et tout ça. Euh, vu l'importance également de, de ce qu'on va aborder ce soir. Donc, euh, j'aimerais surtout euh, avoir l'attention de tout le monde. Comme ça, on va partager le live. Njóobeen yi dañuy mos rek lool Njóobeen dañuy lekk rek dañoo bëgg lekk. Alors, donc, je vais vous lire à partir de mon téléphone. Je crois que c'est plus facile d'essayer de lire sur l'écran parce que c'est un peu loin quand même, j'avoue, depuis l'écran. Voilà, et déjà là, on est à 400, donc j'attends que le live monte. tant que ça ne monte pas, euh, je ne vais pas faire de live. Parce que je vous ai dit que moi, je sors que quand c'est important. Et là, c'est très important. Donc, je voudrais aborder plusieurs sujets. Notamment, euh, déjà, on va parler d'actualité par rapport à Ali Magadji. Donc, je crois que tout le monde a lu. Euh, ou bien tout le monde euh, a appris euh, euh, la, la, malheureuse nouvelle hein, par rapport à Alima. Ensuite, on va parler des, des sages-femmes et de leur soi-disant grève. Et également, on va vraiment faire un peu de tour sur tout. Et puis, je prendrai des commentaires, on va lire et tout ça. Dalen ak jam. Donc, euh, live, les nous commencer. Nous sommes à 400, mais je démarre pas tant que je ne suis pas à 1000 personnes. C'est pas la peine. Voilà, donc, je vais rien dire tant que je ne serai pas à 1000 personnes. Voilà, donc j'attends que ça monte. Si ça monte pas, je dirai rien. Donc, euh... voilà. Donc, je lis les commentaires déjà à partir d'ici. Coucou ma belle, coucou. Alors, j'attends que tout le monde se connecte. Là, nous sommes à 505 personnes. 500. Voilà. Donc là, on est à 500. Euh, montez encore un peu plus. Montez un peu plus. Euh, Nabou Baye Ndiayeni. D'accord. Baye Mais on rigole. Entre les Ndioben et les, et les Sars, avec les Djoufen, nous sommes Sénégal. Quelle importance de votre direct euh, Euh, déjà, reste jusqu'à la fin, tu comprendras l'importance du direct parce que c'est des questions qui sont prématurées, tu vois. Voilà, donc euh, déjà, nous commençons sujet. Là, nous sommes à 531 personnes. On attend un peu quand même. On attend un peu quand même. Donc, euh, voilà, vite, vite, vite. Toujours si belle, merci. Nappy girl. Oui, oui, j'ai les cheveux, euh, vous avez vu, bouclés et tout ça. Et voilà, je, je défrise pas mes cheveux. Moi, je défrise, je défrise pas du tout. Donc, je garde mes cheveux au naturel. Après, j'ai coupé. Donc, ils sont, euh, ils sont assez courts quand même. Mais bon, après, voilà. C'est le ramadan. J'ai pas envie de mettre des faux ongles. On n'en a pas envie. De toute façon, ça se termine bientôt. Donc, on va attendre la fin du ramadan déjà pour essayer de se mettre au top. Vous savez, comme d'habitude, quoi. Donc d'autant plus que je commence une émission de télé euh, bientôt, juste après le ramadan. Donc vous allez me voir en mode de faux ongles, cils, make-up, you know. Parce que donc venez pas me parler de oui Nabou, non parce que on se connaît, on sait. On sait, on sait que Nabou s'habille bien, on sait que Nabou n'est pas euh, on sait on sait. Mais ce soir c'est pas moi. Ce soir je veux pas qu'on de moi ce soir, je voudrais euh, qu'on déjà qu'on parle d'Alima Gadji. Euh, Alima, euh, moi personnellement, euh, c'est une fille que je ne connais pas. Je ne la connais pas parce que je ne la fréquente pas. Et puis, je pense qu'on n'a pas des amis en commun également, vu qu'elle est dans le domaine du cinéma et que moi, je ne suis vraiment pas dans le cinéma et tout. Mais euh, mon cri de cœur ce soir, c'est par rapport à la réaction des Sénégalais. et des Sénégalaises. Donc quand je dis la réaction des Sénégalais et des Sénégalaises, ça veut dire que même man si parce que je suis sénégalaise donc génneewuma ci sama Mais euh, vous savez euh, vous qui nous regardez parce que vous vous êtes en sécurité chez vous. Pourquoi? Parce que personne ne vous connaît. Vous n'êtes pas connu. Euh, limite tout ce que vous faites, c'est pas relayé ou relaté sur les réseaux sociaux. Euh, comme je dis tout le temps siiw dafa am am côté bu négatif dans le sens où tey bëri na ñoo xam ne ñu ngi Sénégal ànduñu ak seeni sago te pourtant siiwuñu te chaque jour nit romb leen te bañ leen a faale bañ leen lijjanti sous prétexte que kii àndut ak xelam parce que dans la société sénégalaise nous on a l'habitude d'isoler les gens tu es malade on t'isole tu as un souci on boo demoon ba am amatoo on te isolation c'est pas bien c'est pas la solution quelqu'un qui a de la souffrance koo xam ne dafa dund lu metti soo ko jegewulee apporter ko un soutien moral surtout physique wan nga ni ko ah man de sa xarit la mang ci say wet kooku jarul euh, ñëw def euh, vraiment une grande lettre sur Facebook prendre la photo de la fille mettre sur Facebook et raconter et, et, et, le pire c'est que j'ai vu beaucoup de personnes beaucoup de femmes prendre la photo d'Alima mettre ça sur les réseaux sociaux boole ci nag ay français kilométrique naan à jadis nous entre femmes et tout c'est du fake c'est que du fake et moi le fake ça passe pas en fait j'aime pas le fake tàmm ngeen nit bu amee problème ngeen jël photo exposer ko ci réseaux sociaux yi mais si tu as mal par rapport à li dal nit ki c'est simple fais un post dis que ah man de maa ngi mastewu diw si li ka dal mais est-ce que tu as besoin de prendre la photo de la personne tu as besoin de prendre les plus belles photos de la personne pour juste lui apporter son Tu sais pas que tu partages aussi l'information, en fait. Vous avez besoin de C'est la même chose que les RIP. Quelqu'un qui décède, mec, ana kan moo dul dee ana moo dul dee fii man mii di wax ak yéen yéen ñii di ma déglu amul benn sénégalais bu nekk fii nu nous sommes 700 personnes amul si 700 personnes yu kenn koo xam ne du dee. ñama ngeen nit bu génnee àdduna ngeen jël RIP yi jël photo yu gën a rafet teg ci RIP yi mais est-ce que tu as besoin de publier la la photo de la personne pour dire RIP t'as pas besoin parce que la personne elle a de la famille et sa famille n'apprécie pas que des inconnus yoo xam ne xamuñu leen sekkuñu ak famille bi dara jël seen photo di ko wili pande c'est de la même chose en fait et les noms le nombre de femmes que j'ai vu prendre la photo d'Alima Gadji oui Alima Gadji de ay yow euh, jadis il se fit un temps où les femmes s'entraidaient aujourd'hui le temps de l'aide est évolué waaw c'est pas la peine c'est du fake vous êtes fake da ngeen di nax seen bopp mosoo leen ko bëgg moi je suis là je la suis sur les réseaux combien de fois Alima s'est défendue combien de fois ngeen ko ngeen ngeen ko xas si si am yaramam parce que dafa pata combien de fois ngeen ko xas parce que dafa am biir combien de fois ngeen yi xaste yéen yéen nay xaste yóbbu nit ki mu xaru wëlbati ko di ko ñaanal wëlbati ko di ko massawu wëlbati ko di ko publier di ko RIP baa naan ko massa vous êtes des gens comment en fait vous êtes comment vous êtes comment un moment donné moi je me dis Nabou mais euh, la jeunesse sénégalaise elle a un problème profond et ce problème profond là tey dama koy décortiquer du A à Z ndax man amul fii je le tout le temps benn blogueuse wala benn liveuse boo xam ne jiitu na ma si ñii di coow si réseau yi sociaux yëpp maa leen fi jur ça fait dix ans que maa ngi ci ba may réseau Sonko ñëwul affaire de ki ñëwul ñii di wax ñii ñëpp clan yi am yëpp tey ba may live kenn liveul kon dama xam réseaux sociaux yàgg ci réseaux sociaux bu pare maîtriser réseaux sociaux moo tax ba lu ma nit mën a wax ci sa écran lay yam du egg si man parce que sekkuñu ko et puis lijjantiwuma leen parce que je vous connais vous poussez les gens à la dépression vous poussez les gens à une folie vous poussez les gens à se détester à se haïr émotionnellement et physiquement en plus je vois que les gens mettent un un un un un comment dire en fait vous êtes tellement hypocrite vous non mais c'est un truc de dingue ma wax ñu def seen groupe body shaming le body shaming est un mouvement qui lutte contre l'acceptation pour la, est un mouvement qui qui qui qui, qui ben, je sais pas moi un mouvement qui contribue pour l'acceptation du corps de la femme vous mettez le body shaming ensuite ce sont les mêmes personnes qui sont à, à qui sont euh, euh, je sais pas comment dire euh, celles qui ont mis en valeur le body shaming ce sont les mêmes personnes ñuy wëlbatiku di xas ña fa nekk sénégalais rek mooy xas nit ci bakkanam xas nit ci ay bëtam xas nit ci ay nopp mel ni ñoom ñoo sàkk seen bopp am ngeen noo leen mel dëkk boo xam ne lu ñu wax rek ni diine lañu diine lañu jiital li nekk seen gémmiñ ak li nekk seen xol si diamétralement opposé moytul ma kuy jàpp di pëkk-pëkk rek allahu akbar foo ko fekk te la ngay wax méngoowut ak say jikko am nga noo leen mel moi j'ai mal pour Alima Gadji et mal mais man de la manière dont je connais aliment par son caractère ak ak ak fullaam bi mu am je sais qu'elle va se relever de ça te gis nga bu jugee si nii mu si lu ko dal nii yàlla na ci yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may ti yàlla na yàlla na ko yàlla yëkkati gis nga bu si jugee bu si jógee di ngeen bëgg ci am keneen koo xam dina leen reetaanloo ba jouer ay ay ay ay ay siir yu leen parce que je pense qu'elle va se ranger dans la discrétion parce qu'on peut pas subir ça et puis continuer à être visible ça ça c'est ça c'est des choses qui restent en fait ça cicatrise pas en fait je veux dire ça ça vous tuez tout le monde vous tuez vos humoristes vous tuez les gens qui vous encouragent en fait le Sénégalais n'a pas la, la, la capacité de de produire mais ñoo dàq yàq si àdduna bi yàq rek la ñuy def ku ñëw ngeen waxal ko mu mu daw génn ku ñëw ngeen jël c'est-à-dire que en fait moi ça me dépasse quand je vois les RIP jël photo nit ki RIP ko est-ce que tu as besoin de prendre la photo de la personne pour wax ko RIP doo ko masaw rek sa biir xol wala nga ñaanal ko wala nga wàcceel ko kaam bali toll na la foofu looy RIP la première chose quand quelqu'un a un problème automatiquement ça partage sur les réseaux ça partage sur les groupes WhatsApp ku nekk waxal ko loo xam ku ne eh, yow kii dafa dof yow kii dafa dof te je sais que Alima n'est pas la seule femme qui subit ça vous savez combien de femmes subissent ça des traumatismes dans le passé et je vous ai pris quelques notes parce que je voulais pas perdre ma file sama fil de conduite les gens ne sont pas au courant de la dépression vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire réellement la dépression dépression euh, c'est un état psychologique boo xam ne ku ci nekk si ñun jaar nga si nga yëg ko nga ñàkk ko yëg te ci fànn yu ne lay am mën ngaa dépressionner juste parce que danga am instabilité émotionnelle te instabilité émotionnelle mooy maanaam mënoo am kenn benn boo bëgg maanaam yow loo ya loo bëgg mu yàqu boo bëggee tey par exemple exemple bu gën a banaan soo jëlee euh, soo bëggantee ak euh, ak Modou dans trois mois sa diggante moo Modou dem yàqu nga bëggante waat ak Xaadim trois mois mu yàqu loolu instabilité émotionnelle la lay jural état émotionnellement t'es pas stable xamoo fooy taxaw loolu mën na la indil dépression ba ngay toog di xalaat naan man lu ma def kii man far bu ma am mu dem fam far bu ma am mu dem far bu ma am dem sénégalais ñu naan la faru rab la yow dangaa am faru rab faru rab la dangay dox bëccëg dangay dox timis je ne dis pas que ce sont pas des pratiques qui sont vraies parce que je suis sénégalaise africaine et je crois à ces faits-là parce que gëm naa ko gëm naa ko mais dafa am loo xam ne bu fi nit tolloo li muy soxla mooy waxtaan mais pas nga critiquer ko te loolu dafa nekk seen point fort tey di nga am copine sax sa koppin am far mu bëgg far bi lool ba fu bëgg yem jékki-jékki moom far bi ñu bàyyante affaire bi def ko genre choc fu mu toog naan ay yow diw bàyyi na ma ay yow di waxtu loolu rek ça fait partie d'une dépression elle mais yéen yéenay nekk naa naan ko kii de ayoo ah de budul kii di keneen te doo ko doo ko doo ko accompagner ci méttitam boobu ba mu génn ci bu savez pas faire ça d'où votre hypocrisie suñ jëlee beneen fànn dépression y de des dépres y a y a des dépressions qui sont liées au travail ce qui s'appelle le surmenage y a des gens qui sont 24 heures sur leur travail dañuy liggéey 24 heures sur 24 ba seen bopp bi day fees su ko defee day dem day def menn genre dépression également. Ça, c'est des signes. Il y a, en fait, il y plusieurs étapes de dépression. Il y en a plusieurs. La pire dépression, c'est celle qui est liée au passé. Par exemple, pendant ta jeunesse, tu as subi des, des, des agressions, tu as subi un viol, tu as subi plusieurs formes de violence. loolu soo màggee ak moom tout le temps bu ñëwee sa xel rek da ngay commencer di di xalaat di xalaat affaire day day se sa xel tellement que xaru rek ngay bëgg. Et je vous rappelle qu'il y a eu le cas de docteur Pala, Pala le cas de docteur Pala, Pala Faye, qui a déprimé, qui s'est donné la mort et a tué ses enfants. Trois enfants, Mourayel Mouraylen. Parce que nekkul cool. Sans compter ni de haru chaque jour, Pas plus tard qu'il y a deux mois, trois mois, il y a un gars pendu si benn potu potu lampe. Dafa jël boum bi tak ko ni wad ci potu lampe bi. bëri na ñii di xaru Sénégal ci dépression dafa bëri te ni ngeen di jëree mbir mi nekkul noonu du question ko nit am na lu ko metti nga war a toog di ko ree ñem mën ngeen a ree nit mën ngeen a massawu nit yàkkamti ngeen massawu nit yàkkamti ngeen ree nit te yéen ñii di ree nit yéen gën a nekk ci dépression ko ñu ñuy feet sax ndax de benn daa gis ko amul liggéey dëkk ci kër yaayam yàgg di ko yor papaam di ko yor mu génn ñu ëmbal ko ki ko ëmbal ne jurul doom ji mu ànd ak dépression nga ne caga xamoon nañ ko ku bàyyiwu cagatu mu fii ngay mujj fekk environnement bi ak la ko dal xamul nu muy def ba génn ci gisul ndimbal day dem ba commencé nag di di waxantu di waxtu ñëpp toog ci isolé wu ñëpp isolé ko ñëpp isolé ko pourquoi parce que euh, dafa dem am jëkkër ñu ëmbal ko léegi non c'est des erreurs qui arrivent à tout le monde ça peut arriver à n'importe qui yéen yéen a mën a tànn ñu baax yéen yéen a mën a joxoon ñu bon yéen sénégalais yéen a xam ñu baax yéen a xam ñu bon yéen yéen ay ñan wala yéen yéen ay avocat du Dieu yow yaa ne yaa ne avocat yàlla ou bien vous êtes derrière Dieu wala yàlla ba mu leen saak daf leen a tàggu vous êtes des malades en fait vous êtes en fait c'est vous les premiers malades en fait c'est vous qui devez vous soigner vous criez partout que la société sénégalaise ne va pas si et c'est en c'est nous même les citoyens qui sont malades c'est même pas le pays c'est nous-mêmes ñun ñoo feebar ñun ñun ñoo feebar parce que xamuñu lu baax ñu wax lu baax te duñu jëf lu baax te fuñ ñu fekk rek ñu ngi joxoñ yëfu jàmbu rek lañuy wax foo ñu fekk foo ñu leen fekk et c'est pas comme ça je lis les commentaires après c'est pas comme ça c'est pas comme ça j'ai vu un commentaire elle me dit oui ou bien allez voir un psychiatre Euh, ça, je vais en revenir par rapport aux psychiatres et tout le suivi psychologique. Et je ne peux pas y aller, euh, je ne peux pas sauter ma, mon, euh, ma file de conduite. Je voudrais y aller comme ça, comme ça on va comprendre. Et l'autre forme de violence, j'avais pris note, c'est le harcèlement au travail. En fait, il y a dafa bëri violence qui euh, dépression dafa bëri li koy indi mën nga am liggéey fi ngay liggéeyee sa patron di la dugal ci ay détournement de fonds compte diw surtout ñu nekk si banque bi compte diw am na dix milliards dormant jéemal détourner un milliard jéemal def lii mu lay ci loo xam ne yow bëggoo ci dugg nga dem ba affaire nag boo nemee sa kër da ngay xalaat parce que bëggoo ñàkk sa liggéey benn waaye tamit bëggoo tamit sàcc c'est-à-dire que y a des gens qui souffrent comme ça dans de fois moi en tant que femme combien de fois man li tax sax ma fipp sax ubbi sama entreprise c'est parce que dama xam ne mënu ma liggéeyal kenn man dama rëy dama ñàkk kersa dama sañ a wax te dama réew ba dof donc duma ma nangu liggéeyal benn euh, kuti mbaasaan man bu may këli këli naan ma viens chez moi pas chez moi on se voit où damay liggéey nga fay ma ba punto basta on se voit nulle part il y a plein de femmes qui subissent des, des qui subissent des harcèlements au travail combien d'entre vous subissent des harcèlements au travail combien combien d'entre vous subissent des harcèlements au travail ñaata Déjà que pour avoir un meilleur poste, il faut accepter de faire la, la position, la promotion canapé. Le pays, il est malade. Et pour ce cas-là, je prends le cas de la Miss, euh, de la Miss John, là. C'était ça. Tu veux être Miss, couche avec un tel, fais un tel. En fait, il y a plein femmes qui subissent des, des, des, des harcèlements partout. Mais le meilleur moyen de nous en sortir en tant que femmes de cette situation-là, c'est de nous donner la main et de ne pas nous juger. On aime trop se juger entre femmes. jamais vous verrez un autre homme dire que góor ku waa ji baaxul góor du mës a xas moroomu góoram foo ko fekk da koy tagg sax faf mais jigéen foo fekk jigéen bu toog moroomu jigéenam bu jógee deram du set parce que yaakaar ne que boo yàqee deram yaay gën a jag yaay gën a baax yaay ëpp commentaire yaay ëpp visibilité yaay ëpp like yaay ëpp cœur c'est ça mais malheureusement ñi ngeen di xas à chaque fois ñoo leen di raw Et je prends le cas de Marie-Louise et je la félicite pour son mariage. Parce qu'elle le mérite. Elle le mérite, elle le mérite. Elle le mérite largement. fi ngeen nekk partage ay photos waaye yow Pa Abou Cissé ay yow fut jëkkëru footballeur ñaata si yéen ñoo ko xas xanaa tey nañ nañ interroger Google ñaata ci yéen yéen a ko xas ba wuli ay vidéo ay ay ay ay audio am ñaata si yéen fat footballeur bu mu nekkaloon faf yàlla def footballeur takku ko te mu jóge nag si CAN macha allah jóge nag si coupe du monde xanaa am ngeen gàcce koo leen mës a rek am na ndam dafa am ñoo xam dañoo am liggéeyu nday kenn mënu ci ñoom lëz lëz yotaa mënoo ko ci kenn yotaa parce que vous êtes comme ça jigéen bu am teraanga da nga koy yàqal ay yow kii nga takk nii ki nga xam ne am na ñeenti far footballeur ba ci lan ba ci lan moom la gis bëgg ko takk ko kala si yéen lañ indi ñaari oto may den ko kenn Parce que, en fait, au fond, elles sont tellement méchantes qu'elles ne méritent absolument rien. Et je reviens dans la dépression. Nabou, est-ce que tu pourrais parler des, des sachants de... Oui, ça, je vais en parler. Je vais en parler, chérie. Je vais en parler. On va faire très vite et je vais en parler. D'accord Et, euh, comment dire euh, Voilà. On parlait de la dépression. Donc, je vous, je, je vous ai donné des exemples de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui ont été lynchées insultées que tey yàlla teral na leen man moom damaa jëlal samay wax ndax man lu ma nit waxalul ci réseaux sociaux yi amul ana Khalifa rappeur lu ma fi waxalul woon amul yéen ñi ne ànd ak moom ah Khalifa rappeur di moo ko xam xam na ko dina lim ko waxal ñii di woo aadamoo ci suuf nan ko waa Nabou Dash fon na jëkkëram waa vidéo bi sex tape la ñaata yéen ñaata si yéen yéen mu ñaata man si je vous Les mêmes abonnés qui sont sur ma page sont les mêmes abonnés qui sont en train de vouloir ma salir mais mënoo leen ci man yo temps leuse rien nada ndax man dafa am lu ma gëm lu waay def sa bopp lu waay wax sa bopp te jamono neexul amuñu temps meeg ma ni boo mënee waxtaan ak say nit waxtaan yokk leen courage dem lu jënd say business temps amul pour ma nekk fii mm, aw ma temps ñi ma tooñoon daaw ñëpp ren talatuñ ma xalifa rappeur talu ma xam nga lu tax kaso ga mu génn taluma taluma kon ay exemple exemple exemple exemple mënumaa lim ndax su ma limee mu fi jógee te tooñ baaxul anyway te baal naa ko wax naa ko ko aussi et ça c'est pour vous dire que quand vous n'aimez pas la personne ayez la grandeur de laisser la personne faire sa chose nit ki soo ko bëggulee may ko amal grandeur ni ko du ma la suivre ndax bëgguma la mais bëgg nit ki bañ nit ki wër fu mu ne fu mu toog nga ñëw e eh, sista loolu du loolu du inde loolu du mbañeel de loolu mbëggeel la tudd ndax loo bëgg ngay lijjanti loo bëggul doo ko lijjanti dëgg neexul ñi may lijjanti ñëpp di xaar faute de frappe di xaar la di xaar laa non Nabou on dit pas euh, on dit pas le surmenage on dit euh, on dit ça euh, Nabou en fait non vous m'aimez et vous savez que les mots que je sors ce sont des mots qui sont très sincères et ça vous touche parce que lu jóge si xol du génn du génn ci xol dugg si xol amul kenn ci réseaux sociaux yi koo xam ne kàddu yi may wax gën na ma cee maîtriser wala gën na impact mes mots sont puissants et ça c'est pas vous li ma yàlla may la ndax damay wax ñu may dégg loolu du ñëpp la ko yàlla may 900 personne connectées à m'écouter c'est pas n'importe quoi te xebuma ko parce que bu ñu woon sama kër gi fees fi la mu ta fi xaj kon tubaa fakaa la macha allah laf cat dama meilleur ñi ma dëgg di leen ko wax mu leen ni metti nag waaw te moytul ma ku am liggéeyu ndey kooku xoolal l'intouchable la tudd képp ku ci am sa liggéeyu ndey maa la ko wax boo tëddee nelaw day metti de mais dafay yàgg yàgg day neex yàgg-yàgg dafay neex moo tax je dis à tout je dis tout le temps à mes jeunes sœurs battez-vous comme vous pouvez parce que la vie ne vous fera pas de cadeau te ñi leen di wër ñëpp te ñi leen di wër ñëpp di leen critiquer tey suba ñooy fëgg seeni kër di ñaan ceeb ak suukar ak diwli ndax amuñu ambition elles ont pour seule ambition de critiquer de rappeler aux gens que t'es pas parfaite, de rappeler aux gens que t'es pas la meilleure, de rappeler les gens que t'as pas, eu le master, de rappeler aux gens que ton non! Game bi, du géemu wax, géemu jëf la. Te Sénégal, kenn ëpp ma fi ay jëf. mooy jigéen comme yéen, di fight comme yéen. Sama papa du Adama Faye, du du du Marème Faye. Kenn xamu ko fi. Tubaar fa la macha allah. Kon boo leen roy da roy si nit ki lu baax. li bonam ngeen nëbbal ko ko suturaaleen ko ndax loolu mooy addina mais mën ngeen a wéer nit yaakaar ni que soo leen ko weeree day yàqu day gën a baax ndax tout cette haine que vous avez manifestée pendant quelque temps sur ma page m'a fait décrocher un contrat dans une grande télé les lives que je fais je gratuitement là c'est devenu payant à cause des haters vous donnez de la force vous savez pas ça donc moi ce que j'ai à dire à Alima Gadji mooy hey jugaatal parce que lii mënul ñàkk jugaatal xam fi ngay teg sa tànk xam ñi ngay àndal ñan lañ ndax gis ngeen bëri na ay forme violence yoo xam ne ku ko fi maanaam man sax mënuma ko wax yii di viol viol yii di am si biir kër yi xale bu am 6 ans nga tëdd ak moom violé ko koo xam ne amagul sax baax elle n'a même pas encore vu ses règles elle ne sait rien du tout xamul luy góor xamul luy indisposé xamul luy coton xamul luy freedom nga jël ko sàkk ko say mbokk teg ci seen tànk pour lan sutura familiale eh, yow sutura leen ku nijaayam la ay ay tas mbokk société bi pour mu defaruwaat il faut que ñu rey ñu bari parce que mënta defaroo nii dafa jaxasoo kàtt gay jaxasoo sama doom ak ku mënti doon ku ko sàkku ma faat sa bakana ah. amul amul justice amul les sam de ça am leen courage défendre seen proposition défendre seen principe te ngeen bàyyi joytu gi joytu avancer lul dëkk une femme qui pleure trop souvent n'a pas la force de soulever des choses qui sont lourdes une femme tu dois avoir la force et la détermination am caractère bu pare reew ba dof ku la wax benn nga ne ko fukk lii moo jigéen taxawaalu woo sàccoo da liggéey kenn du la dépassé yotaa mais ngeen nekk ci biir sëy seen néegu sëy di sëy ñuy sàq seeni doom ngeen noppi pat noppi ak organiser bi naan noonu non amu fi c'est à vous de vous protéger góor ñi taluñu leen taluñu kenn nay leer état bi talul kenn nay leer yéen yéen tal seen bopp man ma tal sama bopp ñu am talante mais fi mu ne nii ñun kenn talul kenn contrôlez vos enfants surtout les petites filles rawatina les garçons c'est gëm góor la ñuy sàkku astamaak jigéen man sama doom duma ko yóbbu grande vacances pour comme liñ naan ay ah, yow vacances yi su jeexee de indil ko mu vaca vacances wul mon mes enfants ne vont pas en vacances les vacances c'est avec moi vacances c'est avec moi vous savez pourquoi c'est parce que les actes qui pourront se passer vont affecter leur avenir quand que mal moi en tant que leur mère je les ai tout donné et c'est ça le problème Aujourd'hui, une fille de 6 ans qui a subi un viol, condamnée ce pervers en prison de 10 ans, ne va pas soigner la petite fille parce qu'elle va grandir avec une haine. Elle va grandir bizarre parce qu'on lui a volé sa jeunesse. On lui a volé son innocence. Ça, c'est des choses à dire. Ça, c'est des choses à marcher. Vous voulez faire la marche Marchez pour ces raisons-là. Ne marchez pas pour des futilités. Marchez pas pour des futilités. Les gens, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes des moutons. Quelqu'un qui mange bien, qui dort bien, qui a un salaire de fonctionnaire, vous demande d'aller sortir dans les rues pour marcher, vous marchez. Pendant que vos soeurs et vos frères se font violer et lolu loi bobu amuko. Viol. Xalé bu am 6 ans, perpète le wara am. Condamné à mort rendi. Ren dag sa bar. Parce que lolu acte bu ignoble la. xale bi su màggee mën na am si si si justement si cas bi ñuy wax ni thème bi mën na am ce qu'on appelle une dépression parce que à chaque fois bu nekkee ak boroom këram sax day xalaat flashback loolu mooy def flashback ça s'appelle un flash day flash affaire da ko indiwaat ba muy xale su ko defee day du nekk xolam du neex day jooy tout le temps jëkkër ji sax du comprendre fekk lañ ko def ba muy xale moo ko bawul te Halima Gadji laa di Elle a subi plusieurs viols pendant son, son, son, son, son, son enfance, je sais pas, son adolescence. Donc, du coup, c'est des choses qui, qui la perturbent. Et je la comprends. Et je la comprends. Et c'est pourquoi je n'ai pas publié sa photo. Je n'ai même pas parlé de ça publiquement. Vous savez pourquoi Parce que sorlowul wax ci Alima def photom. Surtout dafa am solo ci nit. Tout le monde sait c'est qui Alima. Elle nous a fait vibrer avec Maîtresse d'un homme marié. Elle a amené les couleurs du Sénégal jusqu'en Côte d'Ivoire. Maîtresse d'un homme marié mooy mennum série bi dem ba Côte d'Ivoire. ñu ko ci décorer yóbbu suñu dëkk kooku bu amee problème Sénégal bi yëpp ko waroon taxaw. paa nga gis ay commentaires ñu naan ah kii fa dof jigéen day muuru jigéen day lii non non non yéen yéen a décidé kuy muuru ak ku dul muuru yéen yéenay ñam ak wala seen muur kan moo validé seen muur yàlla dafa validé seen muur. je n'ai validé personne pour le moment ñun ñëpp ñoo bokku gaal njëkk a baax mujj bu rafetee ko gën te di njëkkante baa baax maa baax ba pare mujj kuti mbaasaan amul sens waaye nag ay jigéen lañu nit ki loo ko bañ bañ bañ bañ bañ bañ booy lab sax jox ko loxo ba mu jug nga ngeen noqante waat ndax xeex balaa neex ki ngay xeexal mu mu mu mu at boo dóoree nit ki ba mu nekk à terre nga war a am grandeur jox ko loxo ngeen jug àndaat dem xeexaat tamit na xeex mënta mënta mënta ñàkk si ay ànd mais ni la personne est à terre et tu l'enfonces toi en tant que femme tu l'enfonces en, en en publiant sa photo en disant des choses qui sont méchantes sur elle pendant qu'elle subit elle traverse des moments très difficiles de sa vie Alima c'est une très belle femme tey war na ko fekk mu nekk ci seem ay njaboota ndax loolu laa ko yéene mais dafa am problème yu mu nekk te waru ñëpp waroon def benn soutien euh, euh, euh, tout les tout réseaux sociaux bi yëpp indil ko benn apport soutien mu sentir ni que ñi mu daan bégal kat tey ñoo ko bàyyi xel nii mais personne l'a fait à part raconter des français à quatre mille à quatre mille à quatre mille lettres ma très chère Alima les mots me manquent femmes subissons tant de violence mais on s'en fout de vos salamalecs on a dit we say reaction. Réagissez. Parlez pas, on s'en fout de ce que vous dites. Et ça, je m'adresse aux femmes. Elles sont comme ça. Elles sont méchantes. Elles n'aiment pas voir quelqu'un bien. Tu es bien habillée comme Naboudage ce soir. Tu as des cheveux comme ça, nappés. Ton mari est devant toi, tu dois faire le machallah. seen xol moo dul neex ndax buñ sañoon doo jàkkaarloog sa borom kër benn ñaar doo solo doo belli parce que ñoom amuñu ko te dañoo fàtt ni yàlla mooy maye yàlla mooy maye yàlla mooy xool ku ka neex def ci moom la neex sa xol di buy buy doo ci mën laada te moytul ma laal laalaake doo too ko defate ci àddina ndax fii kenn bàyyul boppam kon na rafet koo mënta àndal tegee da ko côté loo xamal nit nëbbal ko ko surtout mu nekk koo xam ne elle est dans les moments difficiles c'était une parenthèse euh, ma ñëw si kaawu sage-femme yi euh, xam nga sage-femme yi man dama leen a jox respect waaye le respect est réciproque te respect dafa am fu mu yem man mënuma comprendre am ay nit ñu gaañu ñu faatu parce que elles ont eu un un une mauvaise mais un, mauvais acceptation wala nu ñu koy waxee une mauvaise prise en charge bu pare mu ñàkk bakkanam ñàkk doomam ngeen ni ne lu tax mu tëj seeni mbokk sage-femme sage-femme qui es who are you lii baaloo leen ay who are you yéen ngeen waroon a génn baalu askan bi def communiqué de presse sage-femme yëpp toog ngeen baalu askan bi parce que n'oubliez pas que vous avez fait votre travail est sous serment vous avez juré de servir votre population en toute dignité et en toute transparence loolu la leen dénk ngeen nekk ci clinique yi yor seen téléphone balaa ngaa gën a feebar rek ci rek ñëw di ut sax pour def visite euh, je dis euh, une visite euh, comment une visite générale je sais pas un rendez-vous gynécologique je sais pas sage-femme bi sa accueil ba jël kook si bi sëgg si ordinateur bi madame excusez-moi je voudrais prendre un rendez-vous en fait ani ah, sama docteur il est pas là ah natt bi teg nga ko moo tegi natt bi madame excusez-moi yow lan la soxna si xanaa gisoo ni maa ngi téléphone docteur bi salle huit la nekk waaw tegg na ko mais madame man je connais pas l'hôpital fan mooy salle huit allo jànk xaaral coupeel ma wax la coupeel coupeel coupe xaaral rek madame salle huit gauche droite tout droit monsieur Diatta est là-bas ñàkk ngeen kersa ku ko waxul dee ñàkk ngeen kersa am ngeen melokaan heure de travail takk seen écouteur di wax ay waxu tontine ay waxu natt pendant que les gens sont malades saignants balaa maa dee rek balaa ngeen gën a mën a ñàkkati kerse rek ngeen wax nit ki waa eh moom on peut pas que il faut d'abord payer ah il faut d'abord il faut la facture ne ko waa ah, mais madame sama jëkkër nekk fi xaar ngeen jël ma toppatoo ma le temps sama jëkkër ñëw mu ne la eh amul loolu da fay balaa ñu laa jël ngay naaj en tant que jigéen ñu gis ne ñaa ngi naaj. de perdre les os, mais elles s'en foutent, elles sont inhumaines, sous prétexte qu'elles sont mal payées. Sous prétexte qu'elles sont mal payées. Mais tu es mal payé. Tu n'aimes pas l'hôpital. L'hôpital, c'est sale. Mais qu'est-ce qui te retient dans l'hôpital? Hmm? Tu es mal payé. Tu n'aimes pas ton travail. Les patients sont impolis. Qu'est-ce qui te retient là-bas? va chercher leneen si c'était une erreur moi j'allais pas persister j'allais pas persister vous savez pourquoi parce que c'est pas la première fois que ici au Sénégal qu'une femme enceinte euh, perd la vie juste par négligence médicale ça on le dit deuxièmement ñàkk ngeen kersa chasse famille ñàkk ngeen kersa xamoo leen seen bopp un deux trois rek ngeen wàññi nit ki balaa maa dee mu ànd jëkkëram rek C'est monsieur, sortez de la salle s'il vous plaît, nous n'acceptons pas la famille des membres de famille, veuillez l'attendre là-bas. lépp ci ay kàcc rek juste rek parce que ba ngeen ko torturer dañ ay mbokkam duñ ko gis donc moi j'ai honte que des sages-femmes fassent la grève parce qu'on a enfermé leurs collègues sages-femmes pour des choses des faits qui, qui, qui les sont poursuivis et reconnus moi je comprends pas il y a une maladie je sais pas elles, elles-mêmes il y a un problème. Le problème, il est profond. Le mal, il est profond. Comme on dit, c'est profond. Donc, quand les gens me disent, Nabou parle des sages-femmes, moi, je leur dis nettement, mais j'en ai rien à foutre. Vous savez pourquoi Parce que la vérité, tout le monde la connaît, mais personne n'en parle. Combien de femmes ont témoigné par rapport à ça quand je vois dans la page Lucie Sarr Lucie defaral ma ko anneau man en 2012 dama nekkoon hôpital j'ai perdu trois triplés parce que nii nii nii nii nii on doit en faire une marche yéen ngeen a war a am député assemblée nationale boo xam ne loi yi ngeen bëgg lañ fay voté Sénégal dafa war a toll foo xam ne jigéen ñi il faut que ñu am benn association femme sadique ku ci def naka ñu ku ci def naka su dul noonu muy sage-femme ak muy médecin ak muy la ca toog ñu marche la tëj la perpète jarutul génn yow mënatoo génn toogal sa prison bara deewee fa Parce que le mal est profond. Et parler ne va rien changer parce qu'elles sont émues et têtues de leur personne. Quand je vois des sages-femmes qui disent les Sénégalais elles sont pas reconnaissantes parce que ñun moom des fois cliente bi di ñëw ak ay humeur mais une cliente c'est une cliente. Une patiente c'est elle est malade. Elle a besoin de toi pour la réconforter, pour lui faire sentir et oublier surtout son son son son sa douleur ou ses douleurs. Mais pour ngay defante ak moom. di ngeen a juum ci cible vous vous trompez de cible et comme moi je vous dis je n'ai aucune envie d'accoucher au Sénégal xalaatuma ko clinique dew ma hôpital dew ma privé dew ma dem Maroc accoucher fa sax ma ko gënal ko accoucher Sénégal duma ko def naar yéem a gënal foofu accoucher fii duma ko def non seulement de la manière qu'elles sortent ton bébé elles vont tirer ton bébé ba sa doom bi am am am ndong ndong xale yi bëri am nañ ay ndonga ak ay cuukeel ça cause des ça parce que le bébé on tire avec délicatesse mais elle tire le bébé comme si tu ton fils naît et tu vois que a une grosse tête ou un front et tu te dis mais dam ko dam ko demul et puis tu te dis que c'est de la manière qu'elles ont tiré le bébé moi j'ai un enfant ëmb neuf mois wasin naa sama doom xam naa la ci ëmb xam naa la ci wasin kenn duma ko jàng ndax jaar naa ca taabal ba sa digoo leen sax mais man ba muy ëmb dangaa jël xale bi di ko génnee nànk nii nii nag def nànk nànk nànk nànk nànk ba mu génn ay dara cëram dara manqué wul mais des fois de la manière que les sages-femmes tirent les bébés soit il a un bras cassé soit il a un pied tordu xale bi juddu am benn loxo bu defam te melul woon noonu araam yàlla bindeewu ko noonu yow mii nga xëcc yaa ko xëcc ak pression ak doole sage femme who are you qui es-tu sage femme qui es-tu serment ba nga defoon danga koo fàtte tey bu nu waxee rek mu takk seen verre yi rek soo seen écouteur yi naan ok euh, consultation bi quinze mille noonu mu jël ne am ka ñàkk kersa man y a un problème je suis choquée man tey maa génn Sénégal dem émigré e Guinée wala Burkina Faso sama xel dalatul de ah franchement je suis choquée je prends quelques commentaires avant de continuer le débat euh, je vois plein de garçons qui commentent ici man daal góor ñi daal yéen amoo leen beneen préoccupation parler au ah Je confirme, ma petite sœur a été blessée par elle. Vraiment, c'est dur. Ah, je vous dis, de la manière qu'elle sort tout le bébé, on dirait qu'elles sont en compétition avec Usain Bolt. pas, on dirait qu'elles font euh, un sport, je sais pas quoi. Elles tirent le bébé. Et puis, des fois, souvent, vos enfants naissent avec des déformations. et tu te dis que ndogalu yàlla la sûrement yàlla moo ko bindee nii yàlla bindee wu ko noonu de sage-femme beeg agressé tout tiré ko ba ngay wasin te yëgoo ko parce que souvent on n'est pas en état parce que quand on accouche soit on est en césarienne on est euh, voilà on est euh, dans les pommes ou soit euh, franchement on est tellement en tellement de douleur qu'on ressent pas en fait tu vois on ressent la douleur mais on n'est pas conscient de ce que la sage-femme fait parce que la douleur elle est in elle est inexplicable donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que ceci c'est pas pour toutes les sages-femmes. Il y en a de merveilleuses, il y en a de très douces, il y en a de très correctes, de très bien. Mais le mal domine. mal dominant bi mooy sage-femme yu bëri danoo bon loolu mooy mal dominant bi te donc quand tu parles du mal dominant tu parles de la majorité la minorité quand même elle traite bien leurs patientes mais ça à quel prix ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des cliniques euh, tu payes 4 millions pour avoir un enfant, 3 millions, elles sont gentilles parce que tu payes beaucoup d'argent. Mais pourquoi une clinique que tu payes 2 millions devrait avoir un, un, un, un meilleur comportement par rapport aux soins euh, qu'une clinique que tu payes zéro Je comprends pas. Même si c'est une, euh, euh c'est une institution privée, même si c'est un, c'est un, c'est une clinique privée, parce que comme c'est privé, ça ne dépend pas de l'État, ça dépend de la personne euh, morale et physique de voilà, la clinique et tout ça. Mais quand c'est public, c'est pour l'État. Moi, je me suis dit que les services publics devraient être plus soutenus que les services privés. Parce qu'au Sénégal, il euh, n'y a pas une majorité par rapport à, à la bourse. Madame, ni mon fay, taille 1 million, 2 millions pour vous, Sénégal, bariwul. bariwul coolee fene rek mais pauvres yi ëpp ñu riche dara amul les riches se comptent au Sénégal on les compte. Les riches, on, les compte. Les multimilliardaires, on les compte. Les multi-multimilliardaires, on les compte. Le multi-multimilliardaire, on le compte. C'est pas beaucoup. Mais il y a plusieurs souches de, de, de, de ces populations euh, elles n'ont pas trop les moyens. Et puis même si nous avons juste pour accoucher, il faut 1 million ou 2 millions. Ma question est, est-ce que ñun en tant que femme dañoo war a régler rek ci réseaux sociaux yi nii critiquer ko wala dañoo war a organiser benn institution boo xam ne képp kuy euh, patient foo munti nekk ci région bi ab hôpital bu la maltraité ñu communiquer ko fexe indi ci indi ci benn euh, comment dire benn assurance ou un truc du genre et euh, voilà donc je prends les commentaires tu vexes les sages-femmes déjà toi euh, tu es un homme et je ne sais pas par où tu voudras faire passer ton enfant comme yow yegoo li ëmb ak lu di ëmb je te bloque et tu vas raconter tes bêtises ailleurs parce que j'ai vraiment pas ton temps je suis vraiment pas d'humeur donc euh, voilà voilà que les sages-femmes qui sont vexées euh, sauter et caler en l'air parce que franchement j'en ai rien à foutre parce que si vous étiez si blanche que ça le problème ne serait pas là moi si c'était moi Si c'était toi ou ta soeur d'où la nerf, imagine tu es enceinte, tu vas pour accoucher, tu meurs. Pourquoi Parce qu'il y a, y, a, y a une conne qui est là-bas qui n'a pas le temps de te prendre en soin parce qu'elle juge que tu n'as pas mal. Elle juge que tu n'as pas mal. Elle juge. Ou bien elle te fait Ah, <laughs> yow kay xanaa xamoo moom sëy du foo nekk si rek yaa ngi nii ëmb yéen kay chaque jour ngeen nekk ci waaw <laughs> da nga doon foo mu neex kon boo si di di di di parole débile. J'en ai marre. J en, j en, en fait, j'en ai plus que marre. Je prends quelques commentaires. Euh, elle, elle me dit... Euh, femme nanana nanana sage-femme moo ko def noonu sama doom Ibrahima sage-femme moo def noonu jusqu'à présent son bras n'est pas normal ah voilà et qui te dit que Ibrahima n'avait pas un destin de devenir euh, poète ou peintre tu vois à cause d'une sage-femme tu as un enfant handicapé c'est grave jigéen Sénégal franchement ay jàmbaar ngeen dañ leen ni ñaaw sans anesthésie métti na trop en plus sans anesthésie mais vous êtes des malades vous êtes des malades moi jamais je pourrais accoucher sans anesthésie xalaatuma ko bu pare teg ci ñu nay ñaw am ngeen fulla am ngeen fit aussi moom je peux pas franchement je sais pas si un manque de choix mais euh, le mal il est profond la société elle est malade les gens sont méchants oh my god yàlla nañu yàlla musal rek lii ku ci mucc ngir jàmbaar nga je prends le commentaire et dit yaa doon foo muy neex imbécile yi ni ma leen jéppee oui oui oui c'est comme ça qu'elles font yaa doon fooy muy neex maintenant tu vois mais elles sont malades voilà donc euh, corruption les riches sont riches les pauvres sont pauvres justement billaay mais en fait moi ça comment je dis euh, vous savez j'ai l'habitude de le dire ça toog sa kër di jooy et de pointer du doigt ton voisin qui mange du poulet tout le temps ou qui a une bonne vie tout le temps la solution c'est de te lever parce que tey boo jugee di sa dëkkandoo am di nga am lu ko raw mais nga toog fi nga toog dëkk bi neexul croiser les bras doo liggéey xëyoo gontoo amoo benn ambition de vie y a des filles tu leur demandes euh, c'est quoi tes ambitions ah ambition man de bu ma amee jëkkër footballeur rek baax na ah man de yow xoolal su ma amee far bu baax rek grave man jëkkër naa am far bu baax rek. les ambitions de de de certaines femmes se limitent à avoir un copain qui a un nom ou bien avoir un copain euh, euh qui a une situation financière c'est ça c'est pas une ambition une ambition c'est c'est c'est un projet personnel, mûri, étudié, qui veut, qui, qui a euh, pour but d'aboutir à quelque chose de grand. C'est un rêve. L'ambition dépend souvent du rêve, mais c'est pas juste avoir un copain qui a l'argent, te marier avec Sadio Mané, puis tu es Madame Mané, non. Non. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Salam, la plus belle, vraiment, respect à toi. Tu es véridique, qu'on ferait mieux de t'écouter avec attention. Ah, mais euh, vous savez, sur la même toile, les gens m'ont traité de tout, ici, sur Facebook. Les gens m'ont dit n'importe quoi, tout, tout truc. Mais si j'arrive à les maintenir à 900 personnes, il est quelle heure euh, Il est 21h. C'est parce que euh, ce que je dis, ça rentre ici ça sort ici et ça rentre là-bas pour vous. Vous écoutez mes paroles. C'est pour ça que vous êtes là sur ma page. Et moi, je sais qu'est-ce que je dis et je sais ce que je fais. Les femmes ont besoin de femmes motives, qui les motivent, qui les donnent envie de faire quelque chose, qui les donnent envie de se lever et de se battre. Les femmes n'ont pas besoin des femmes qui les insultent ou les rabaissent. Et souvent, je dis aux femmes, euh, de pas se, se, se, se limiter à la bassesse, à ce que tu as fait, tu m'as dit ça, elle est comme ça, c'est pas important. Le plus important, c'est comment on peut faire pour ensemble essayer d'avoir quelque chose de, de, de, de, mieux que ce qu'on a aujourd'hui par rapport au système de la santé, par rapport à l'éducation des enfants et surtout par rapport au système total en fait. C'est très important qu'on puisse s'écouter et euh, pas se critiquer. Voilà. Et c'était tout pour ce soir. J'espère que le mot est bien rentré. Et euh, j'espère que vous avez bien compris. Et surtout, euh, je tenais à apporter mon soutien à Alima Gadji. Euh, ce qui t'arrive, c'est absolument rien. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Des fois, l'esprit a besoin de se déconnecter. Parce que quand on travaille du lundi au samedi ou du lundi au vendredi, le week-end est fait pour ça. Le week-end, c'est fait pour sortir de son quotidien, c'est-à-dire de sa zone de confort, entre parenthèses de sa maison, et d'aller de, de, de, préférence dans des endroits euh, très aériés, très, euh, très, euh, très a... <laughs> merde, le mot m'échappe, aéré, très aéré, et surtout euh, avec beaucoup de verdure, parce que les plantes, ça, ça déstresse. Surtout quand tu vas à côté de la mer ou à la plage, ça déstresse. Et il faut toujours, tous les week-ends ou un week-end sur deux, essayer de faire des activités en famille, de couper les téléphones portables, de rester en famille, ça fait du bien. On ne peut pas travailler du lundi au vendredi avec un stress et recommencer la semaine suivante sans déstresser. Des fois, le cerveau a besoin de repos. Et il faut savoir se reposer. C'est important. Moi, pour me reposer, ce que je fais, je lis beaucoup. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Euh, moi, la lecture, c'est ma passion. Mais malheureusement, j'ai tellement pas de temps. Mais quand j'ai du temps, je lis. Et là, ça fait depuis quelques semaines que je suis en train de lire ce livre-là, Le désordre du cerveau émotionnel. C'est un livre de Bruno Millet. Je l'ai acheté aux 80 à, à 23 000. Il coûte 23 000. Et euh, je le lis beaucoup. parce que c'est un livre qui, qui m'apaise, moi, la lecture, ça m'apaise. Si c'est pas la lecture, euh, c'est plus euh, Netflix, c'est pas ça. Après, c'est un peu sortir en week-end avec mon mari, avec les enfants, j'aime bien sortir comme ça. Même si ces temps-ci, on est un peu serré avec le travail et tout. Mais je suis quelqu'un, euh, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup sortir. Surtout aller dans les régions comme récemment, euh, Matam, Fouta. J'aime bien aller vers là-bas parce que ça me ressources je suis coupée de Dakar et quand je reviens, je suis reconnectée. Et c'est important pour la stabilité mentale de toutes les personnes qui travaillent au Sénégal en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. C'est important des fois de faire un, un get out, un off total et de se ressourcer, de, voilà, et de pouvoir euh, revenir euh, en force. Voilà. Alors toi, euh, je te bloque. J'ai pas envie de faire un débat. salue-moi tes parents alors premier accouchement dañoo waroon def gratuit pour la suite les concernés mu jënd les médicaments nanana de les étudiants qui sont en médecine mais en fait euh, moi je peux pas trop m'avancer sur ça parce que je sais pas comment ça se passe mais en fait les femmes sénégalaises les femmes tout simplement surtout sénégalaises doivent espacer leur grossesse te bàyyi neef bi comment tu peux avoir un enfant en 2019 tu as un enfant en 2020. 21, tu as deux jumeaux. Mais le corps même a besoin de se reposer. Espacez vos grossesses, faites des, des, des, des, des plannings familiales. Les temps sont durs. À toi seul, tu vas avoir cinq enfants. Or, oh, les hôpitaux sont en danger. Il y a un problème. Espacez les grossesses. Le nombre d'enfants ne te fera pas être the number one. So, you don't need it. Je prends un autre commentaire vite fait avant de vous laisser. elle me dit mm, mm, doy na waar de ah mais en tout euh, c'est à vous de vous battre su ko defee yàlla may leen kàttan ak mën-mën bo leen demee ci clinique parce que hôpital yi de ay vampire laa fi gis sama rak moo am problème si bët léegi ma yàq ko léegi mu yàq jàpp leen ko fi xam ku ma mën a faj bët Ok, il y a quelqu'un qui a un problème, donc je sais pas si vous pouvez lui donner une solution. En ce moment, je sais pas trop. Elle me dit, ton combat est noble, bon courage. Euh, merci. Euh, bonsoir Nabou, comment euh, tu vas Tu as maigri, Rana Korgimon le diable. Oui, c'est évident. Je crois que c'est pas une question, ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui est en plein carême et qui n'a pas maigri Donc, euh, ouais, j'ai maigri, ouais, c'est normal, c'est le carême. Je pense après le carême, je vais rester comme ça. Là, au moins, je fais du Bon, après, euh, voilà. Mais voilà, je fais du et tout, mais ça va. Je vais rester un peu comme ça. Ça me fait un peu de... Ça des, des, en moins. Et dit les étudiants qui sont en médecine, sage-femme, Je t'adore, je t'adore aussi. Euh, elle quoi C'est la meilleure pour l'esprit, faut re, faut décompresser, vous voulez dire. Sinon, tu deviens fou. Ah oui, oui, il faut, faut, décompresser, il faut sortir. Euh, euh, surtout euh, quand on est en couple, il faut faire plein d'activités en couple. Euh, déjà, je sais pas, moi j'aime bien aller faire du cheval avec mon mari. On va souvent faire du cheval. Ou sinon, euh, je sais pas, on regarde la télé. Ou des fois, on se promène simplement en fait. En fait, on essaie de pas rester dans la routine. Ça, ça, c'est pas bien. Tu as maigri, tu as grossi ñu nga xees nga typiquement sénégalaise oui Thioro Diop oui c'est comme ça c'est des questions qui frustrent des fois tu dis à quelqu'un t'as noirci et ça l'affecte automatiquement day dem xool fu mu amee diw pour xeesal pour truc tu vois il y a des personnes qui n'ont pas un fort mental moi franchement euh, j'étais claire comme une euh, comme une naine jeune il y a il y a six mois là j'ai un teint marron parce que j'en ai rien à foutre des gens c'est qu'ils vont me dire Moi, j'ai envie d'avoir un teint marron, j'ai un teint marron. Hein. Si mon teint te dérange, mais va te faire foutre. C'est-à-dire que tu vas pas me donner ton stress. Moi, hors de question qu'on me stresse. Ce que tu penses, j'en ai rien à foutre. Garde-le pour toi. Parce que sur mon cabaret, Alex, C'est comme ça qu'il faut être au Sénégal. Mais quand on te parle, tu encaisses, tu encaisses. À un moment donné, tu, tu pètes un Gardez vos commentaires pour vous. Franchement, ji ñaa euh, ngi les seetaan depuis Jidda Mariam Lo merci Marianne j'espère l'année prochaine je serai à Jidda cette année j'ai raté doog a jeex danga ñu day yàq àdduna ça dépend pour qui ça y a des gens soo leen ko ko waxee euh, ils s'en foutent salut moi dis-moi juste salut serai contente Alma Cissé Salut ma chérie Alma, bonne soirée à toi. Euh, Nabou, franchement... Elle dit Nabou, attendez, je vais lire ça. Nabou, franchement, j'ai besoin de tes conseils pour un projet que je peux lancer, que je veux lancer. Euh, déjà, moi, j'ai dit, les conseils, c'est payant. Donc, euh, moi, si tu ne me payes pas, je ne te conseille pas. Je n'ai pas le temps de conseiller gratuitement. Si tu veux des conseils, tu me payes. Si tu n'as pas l'argent pour me payer, chérie, regarde sur Google, YouTube, des trucs que tu peux faire. Moi, je ne suis pas là pour travailler gratuitement. Mes conseils sont payants. Euh, par rapport aux investissements, c'est payant. Fournisseurs, c'est payant. Moi, je ne ferai pas gratuitement. La seule chose que je fais gratuitement, c'est parler à mes fans sur ma page Facebook. Mais à part ça, je ne fais pas du gratuit. Tu veux des conseils Paye-moi mes heures. Voilà. Paye-moi les heures on discute avec des heures payées au préalable. D'accord Je ne vais pas gratuitement. J'ai une famille à nourrir et je dois, prendre, mes vacances en juin. Donc, j'ai envie d'aller aux Hawaï avec mon chéri. il faut que me donne de mon billet d'avion, business class et tout ça. Donc, c'est à vous que je le dois. <laughs> Mon m'a conseil gratuit. <laughs> hmm. Notre-Dame de Fer, tu nous as manqué. Je serai de retour à 100% pendant, euh, après le ramadan, Inch'Allah. PTDR, tu payes pas, t'as pas de conseil, time is money. J'ai raison, j'ai raison, je travaille pas gratuitement. Pensez que je vais te conseiller à chercher, à avoir de l'argent. Ça va pas ou quoi Tu me payes et je te conseille. Tu me payes pas, cherche toi-même. Moi, je suis pas votre journaliste ou je sais pas quoi, moi. billaay c'est une déf c'est un défaut nous les africains euh, bon j'ai pas compris ñun ak sa ak sa wërsëg moi j'aime pas la planification je voulais avoir beaucoup d'enfants Tidiane Sibi euh, Tidiane déjà la planification c'est pas pour les hommes et de deux tu un vrai con parce que toi en tant qu'homme tu t'en fous des nombres d'enfants que tu vas Mais en même temps, tu ne prends pas de grossesse, tu tombes pas enceinte. Donc, euh, toi, tu es un malade. Tu as besoin de te soigner. Voilà. Mais Nabou, tu réponds pas. C'est ça le problème. Mais je veux que tu me donnes les conseils ensuite, que tu me sois grossiste par les bagages. Il n'y a pas de problème. Il faut payer d'abord. Quand tu m'envoies l'argent, ça dépend de ce que tu veux faire. Je te donne le montant, tu payes. Quand tu m'as donné l'argent, maintenant, moi, je te conseille. Quand tu as fini, je te présente à des fournisseurs. Mais je ne peux pas le faire avant sans que tu me payes d'abord. Voilà. <laughs> C'est réseau bi, rec, la, donjar, coaching, combien s'il vous plaît euh, Ça dépend sur quoi également aussi. Euh, voilà, tu es direct, j'aime bien ton caractère, je veux que tu... Je te suis tout le temps. Merci beaucoup. Merci Joséphine Mangan. Merci. Euh, T'as pas de petite t'as pas des petits problèmes dans ta tête. Je me suis cru que tu as une petite dépression. Dis-nous la vérité. Africa Bijoux. Bon, toi, je vais te bloquer et tu vas dire à tes parents si j'ai des dépressions ou pas. Voilà. Toi, tu es dégagé de ma, de ma page. Combien d'heures pour les conseils Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, les bébés. Ça dépend. Voilà. Nabou, Boulbaï, Koudé. Boulbaï, Kou. Nabou, Boulbaï, Koudé. Bon, ton, toi, je te bloque. J'en ai marre des hommes, là. Moi, je veux... Euh, tu as... Tu fais très mal pour conseiller, tu demandes l'argent. Bon, je ne vais pas répondre. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et euh, on se dit euh, à très vite, Inch'Allah. Et euh, voilà, je souhaite de passer une bonne soirée. À très vite. Profitez... Euh, franchement de, des week euh, pour sortir, pour euh, aller un peu dans les régions, prendre de l'air pur. Ça fera du bien et courage à Gadji. Franchement, elle a tout mon soutien à Kader Gadji, à toute la famille et tout ça. force à vous et ça va aller. Bisous, bisous. Et merci de partager quand même un max le Comme ça, me fera des vues et des abonnés de plus. parce que je travaille avec ça. Voilà. Et euh, déjà, voilà, sans oublier la question qu'on m'a posée, la télé pour laquelle je vais travailler, c'est pas TFM. Donc, euh, retentez votre chance, c'est pas la TFM. C'est une télé de la place, mais c'est pas TFM. Et c'est par cœur que je vais là-bas, parce que j'aime le directeur de la télé, puis je suis de toute phase avec eux. Voilà. Et oui, j'ai des cheveux très longs. <laughs> Au revoir et merci, bonne soirée. Coco vous dit bonsoir. Bisous, bisous. moytu leen wéet balaa ngeen xaru <laughs> au revoir <laughs> bisous